asalaamaaleykum. Eh, tur bi ak sant bi. min ko rugi Demba Niang mbiyeteemi uh-huh. rugi Demba Niang a tawama doyti e mbiide ɓe mbat sargal Macky Sall woni hen miijoji ma mi calmini ko adi fof bandiraɓe juurima mi calmini kadi arɓe ɗo hannde ɓe en gari ɗo hannde ndemal uh, palais président jidde waɗande Macky uh, sargal e foɓɓandemo kelle e weltanademo eko waɗi ko gonga ni ndo noosi uh, waɗande candidature makko nde yimɓeɓe mettinino surtout min kam mi wawa haalde ko dañmi hen kono noon kadi so kadi ha daari nder maaro kadi on foti wadde ko waɗi ko ɗon ko dimo kadi won noon ko konngol muɗum wonko ko adno ko woɗɓe cikka noon waɗa ɗum kono ko adno ko ɗum o sellini ko ɗum woodi ɗon noon ko dimo ko ɓiɗi ɓe jeeɗitu kadi o firtata aadi kadi yimɓe fof ne nganndi toyti lenndi ɗo gila indépendance haa ɗo jooni musi kay makko tan seeɗa koɗo lenndi wiɗo eto lenndi haa hannde ɗo tan o acci kono noon neɗɗo e, e, e, e feere mum allah e hoddiroji muɗum kono hannde hannde amin ñaagui ko ko adde leydi he ko eko waɗi aduna he ko kala ɗo wawi yaade aduna allah hokkuma ko yiiɗe hokkam sago makko e yidde makko nde wat o moƴƴini o tinnima o woni dimo o woni dimo ko deeƴo o bona needi o gollata golle bonde amin ñaaguima noon hannde to yimɓe goni hannde ɗo henna hannde hay soko leggal amin ñaagui leggal ngal yo adda min leggal ngal ko ngal leggal min mbaɗɗo koye maggal min makko noon ha ma ga he sénégal min gonde makko kala ko addani min ko ɗum min jaggat yo wallu on jarama a jarama ñun duñu mombu mukki makki nekkul président sax ñun ak makki rek ñun bëgguñu ku makki makki lañu bëgg makki lañu gëm bu ñu indilee bant sax dañuy ànd ak moom ñun daal makki rek makki lañuy dundee Macky la ñuy dund Macky la ñuy nooyi sal baalo lam toora burgere lépp Macky Macky Macky Macky Macky affaire à vie vive président Macky Sall Macky lañ gëm Macky lañ topp vive Macky sa ginnaaw ku Macky tànn rek ñu ngi sa la Macky rek mim bi kooku mim moom la topp tey moom la topp ëllëg moom la bëgg moom la topp moom la wax Macky rek may ko weer ak weer lee Macky ñoo ko bëgg suñu xol baax na yaru na teey na dox ndànk wax ndànk Macky nag li mbëgg yaal yàlla na ko yàlla defal ñun Macky Sall rek lañ bëgg bëgg rek ba dee macha allah. asalaamaaleykum yéen waa Sénégal gannaaw bu ñu sant yàlla julli sonante bi sant si sëriñ mu ngi laanaa Seck la Ibrahima Niass rabbana wa taala ñu ngi nuyu ñëpp di bëpp bépp koo xam ne nii yaa ngi si Sénégal di nuyu militant Benno Bokk Yaakaar yi. tey dañoo fi ñëw pour sargal son excellence monsieur le président de la république ngir liggéeyam bu mu liggéey pendant 12 ans ñu ñëw sargal ko. delloo ko njukkal rendre ko un vibrant parce que le mérite il a changé le visage du Sénégal à 12 ans il a changé catégoriquement le Sénégal. ñu ngi ko sant di ko gërëm di sant militants yëpp di o ñëpp nañ ñëw nañ ñëw nañ ñëw jàppale Macky ñëw jàppale Benno Bokk Yaakaar képp koo xam ne nii Macky démb meroon nañ Macky ba mu démissionné mais tey nous sommes fiers ngir l'intérêt réew mi rek moo ko ñor amul dara luñ ko ñor lu dul intérêt réew mi kon nag ñu ngi jaajëfal ñëpp. ay waay Macky Sall lañ bëgg a bàyyi ku Macky tànn rek ñu ngi sa ginnaaw waaw vu que travail bu am solo bu mu def ci réew mi liggéey bu am solo bu mu def ci réew mi ñun Macky rek lañ topp. président Macky Sall mooy suñu suñu lépp président Macky Sall mi ngi àddina bi Ndo mi mi ngi bëtte Sénégal mi partout.